amal muy journée nationale de l'arbre nga xam ne ñi ngi ko décrété woon ci 1983 mu am 41 ans yoo xam ne at mu jot daañu amal benn bis euh, muy bis bu ñu jagleel garab ci réew mi nga xam ne moom mooy euh, Sénégal euh, ren nag 2024 bi ñu jagleel li nga xam ne mooy bisu garab ci lii di Sénégal région bu Diourbel waaye ci biir région bu Diourbel ñu jagleel ko département bu Mbacké ci biir département bu Mbacké ñu jagleel ko euh, commune bu Touba loolu nag su mënee am dafa am taxawaay bu am solo boo xam ne lii di Touba ca kanam nooru daara ni daf ko taxawee ci wàllu environnement liggéey boo xam ne état bu Sénégal def ko reconnaître ba tax lu mel noonu ñu jagleel li nga xam ne moom mooy bisu lii di garab ci Sénégal ñu jagleel ko li nga xam ne mooy commune bu Touba. ndax mooy première commune boo xam ne moo gën a yaatu ci yokk ab dëkkin ak ñi koy dëkkee waaye itam département bu Mbacké gën a ëpp lii di ay nit ci lii di Sénégal nekk ci biir région bu Diourbel kon loolu bokk na ci yi tax euh, président de la République bi muy waxtaan ak son ministre de l'environnement mu laaj ko lan mooy tax choix wu joxe nañ ci ay arguments yu leer yoo xam ne ñépp nangu nañ ne loolu lu yell la waaye loolu lu jaadu la tey nag ginnaaw boo xamee ne ci suba gi xëy nañu fi nga xam ne moom mooy héliport kilifa yi nga xam ne ñooy kilifa yoon wi eh, teew nañu mën nañ ko tudd ku mel ni Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdou Khadre ak njabootu Cheikhul Khadim gi yépp waaye itam eh, waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall ñoom it teew nañu Touba ca kanam Serigne Abib Mbacké teew na autorité administrative yi tàmbalee ko ci maire bi sous préfet ak préfecture bi tamit ba ci conseil euh, départemental bu Mbacké ñoom it teew nanu ba ci lii di région bu Diourbel waaye itam autorité administrative yi ministre yi teew nañu bare tam ki nga xam ne mooy président de la république di son excellence Bassirou Diomaye Diakhar fay moom tamit teewoon na lan moo tax loolu amoon nag nu ànd seetaan élément bi nga xam ne mooy pépinière bu tubaa ca kanam lii mooy cosaanu li tax ñu tànn région bu Diourbel département bu Mbacké commune bu tubaa ñu ànd ak régi bi ak Serigne Khadim lii nii eh, mbirum sëñ Touba la sëñ Mountakha moo woote ginnaaw bi ministre bi ñooy laaj ko ndigal ba mu joxe ci ndigal murid nag ndigal sëñ bu wax ne ne ñëpp jëmbat ak garab kon murid bu ci nekk damaa jàpp war ngaa jël engagement nga ne donte genn garab dinaa ko jëmbatal sëñ Touba ci dëkkam bi sàmmal ko ko ba màgg kon kenn ku ci nekk na def loolu ci xelam képp kuy murid na jël genn garab arbre garabu fruitier bu mu mën doon garab meññeenteef mu jëmbat ko fas yéene koo toppatool sëñ Touba def ko addee sëñ Touba loolu bu ñu ko defee li sëñ bi bëgg dina am te it waxuma la Touba waaye Sénégal gépp dañ ko war a def senegal gépp gépp dañ ko war a def lii sëñ Mountakha bëgg daal nga xam ne keroog ministre bi garab mangu la indi mu jël ci ñaan ci ñu jëmbat ko foofu ci biir këram loolu na ko murid na ci murid yëpp roy ñëpp ñëpp def Bichri TV ak ci Asamadia TV Touba Monde bi TV ak groupe communication xasida online waaye tam ngeen di ànd ak ñun ci li nga xam ne mooy Touba ca kanam TV en direct ñu ngi ànd ak yéen tam ak rajo Asamadia euh, FM waaye tam di ànd ak yéen ak seen rajo Touba ca kanam international en direct ci seen émission Touba ca kanam bi am tous les dimanches 20 euh, heures ba 21 heures incha allah ginnaaw premier élément bi dañuy ñëw ak yéen rek ci. li nga xam ne moom mooy pépinière boobu nekk Kër Gol ñu def fa ci deux mille vingt-quatre bi lu mat vingt-huit mille euh, plantes yoo xam ne euh, dañu ko fas yéene jëmbat ci vingt-huit quartiers yoo xam ne ñi ngi ci dëkk bi nga xam ne moom mooy Touba ngir fas yéene xeex ak li nga xam ne moom mooy désert bi waaye xeex ak li nga xam ne moo jëm ci wàllu réchauffement climatique ak yeneen yu ñu demee ndax ku ne xam ne ne dëkk bi Touba amul lii di fore euh, classée amul ci région de Diourbel amuñu tamit li nga xam ne moom mooy géej waaye tam amuñu li nga xam ne mooy dex ngir mën a wàññi li nga xam ne mooy tàngaay bi waaye tam indi ndox mi kon ngir bañ a guddal dañuy ñëw ci suñu deuxième élément ànd ak yéen ginnaaw boo xamee ne xëy nañu tey dem fi nga xam ne waaw ginnaaw boo xamee ne xëy nañu tey dem fi nga xam ne moom mooy lii di héliport bu euh, Touba doon dalal mbooleem gan ñi nga xam ne dikk nañu ci liggéey bi loolu nag euh, li tax mu mën a am mooy da ngeen di gis ne bi ñu ñëwee teew dal Touba ca kanam def taxawaay yu am am solo def ay intervention ci ay liggéey yu wuute yoo xam ne yàgg na ko def ngir dëkk bi yàgg na ko def ngir réew mi waaye yàgg na ko taxawee ngir fas yéene jàppale askan bi nga xam ne ñoo dëkkee fi nga xam ne moom mooy euh, Touba ci loolu nag xam ngeen ne tubaa ca kanam def na liggéey bu ama am solo lu jëm ci wàllu garab xam ngeen ne Touba garab la gu nekk ci aljanna Cheikhul Khadim Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul wax ne wajale ilaahi maskani tuba abat miss lasmiha bi jaay xëyri man abat kon garab bi nga xam ne moom mooy texe nekk aljanna aji texe ju nekk am benn car bu law war a ñëw sa kër moom la cheikhul xadim dàkkantele dëkkam bu sell bi di tubaa waaye loolu tam firndeel na ko ci mbooleem jëf yiñ fi jëf lépp dafay delluwaat ci infaax fi sabilillah waaye dafay delluwaat ci as sadaqatul jaariya ndax lii di garab am na njariñ njariñ loo xam ne scientifiquement dinañ ñëw léegi ak euh, Serigne Cheikh Mbacké euh, Cissé spécialiste ci domaine boobu doon président sous commission environnement bu Touba ca kanam waaye incha allah bi daan ci jukki lenn ci ay njëriñ yoo xam ne garab am na ko ci ab jullit buy def yàlla rek tax ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon na dénk saaba yi ne bu ngeen demee ci xare yi bu leen dagg garab waaye waxu leen ne bu leen rey nit kon da kiy ciy ne garab dafa nekk lu am njëriñ lu am solo loo xam ne tey boo ko jëmbatee mel nga ni juróom-ñetti milliards yi nit yi nga xam ne ñi nga xam ne ñi ngi ci kaw suuf muy jullit ñi kenn ku nekk tey dundal nga ko waaye taxawal nga ko waaye jàppale nga ko kon loolu nag moo tax tubaa ca kanam def ci année deux mille lii di euh, vingt trois vingt trois mille plantes yoo xam ne jëmbat nañ ko ci dëkk bu sell bi di Touba da nga ciy jàngate ne benn garab bu ci nekk tey ginnaaw bu màggee picc mu ca def ka tàggam nen ca jur ca toskan ba naaw waaye sànq lañ bu ca nekk mel nañ bu ca nekk njanaaw bu ca lekk meññeet mu mu ñor ku ko ku ca jëfandiku ba kere yowmal xiyaam dañ koy defal jaam bi ci karneb jëfu yiwam muy karneb alamalu saalix bi nga xam ne lii di télévision bii di As-Samadiyya TV ñetti bàkk yi mu am mooy al ilmu naafi al amalu saalix ak al adabul mardiya dafay delluwaat ci liggéey boobu kon mbokk yi day mel ni yiw la woo xam ne benn ñaat téeméer ngay joxe ci tubaat ca kanam ñu defal la ci 37 projets yoo xam ne benn bu ci nekk mën na la xettali fii ci àdduna waaye mën na la xettali ci àllaaxira ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na sunu borom nee na dina sax ci dimbale jaam bi li fekk jaam baa ngi sax ci dimbale li nga xam ne mooy mokkam kon dinañ jéem a demaat rek régi jël sunu deuxième élément dikk ak yéen nag ci bis bu mag bi nga xam ne moo amoon tey nekk journée nationale de l'arbre ñu décrété ko woon 1983 ci teewaayu président de la république abdu Diouf tey ñu def quarante en an ñu ñëw nag ci liggéey bu am solo boobu jagleel ko région bu Diourbel bi nga xam ne Serigne Touba Cheikhul Khadim def na fa fukki at ak juróom doon wax ne Ramul Masiri ila Diourbel la daal la sa sin ku ne xam na ne Cheikhul Khadim bi mu ñëw njaareem xamuñu woon ne foofoo gën ci moom. waaye terewul mu ne gars yi ànd na ma ak ci ñu dem jaareem kon ñu dikk ak yéen léegi incha allah ci élément bi nga xam ne journée tey bi tey seen mission Touba ca kanam dañuy dundaat ak yéen jotaay bi nga xam ne moo amoon tey ci bëccëg mbooleem kilifa yi biir réew mi ak bitim réew yi ñëpp maase woon nañu orienté wu xool son excellence monsieur le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar fay liggéey bu rëy bi nga xam ne mi ngi ñëw tey def ko doon ko def ci réew mi yépp waaye tey mu war ko def ci fi nga xam ne mooy région Diourbel département Mbacké waaye commune bu lii di Touba kon nu ñëw ak yéen sunu deuxième élément incha allah rabbi ànd ak yéen seen émission euh, Touba ca kanam nooru daarayni asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki Touba ca kanam nooru daarayni ñoo ngi leen nuyu baax di leen ziar eh, ñoo ngi fii ci toolu Touba ca kanam bi nekk fii ci Daaru Rahman ñu nekk ci wàccaayu euh, journée de reboisement 4 août incha allah ñu di ko waajal fii ci dëkku sell bi di Touba te son excellence monsieur le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye eh, décrété ne Touba la ñuy defee ren journée de l'arbre Touba ci kanam nag di ko waajal ànd ko ak ministère de l'environnement. fii ñu nekk nii nag eh, camion bii nga xam ne ñu ngi wàcce garab yi mu ngi jógee eaux et forêt nga xam ne ñoom dem ba tey camion yi ñu ngi ñëw di ay garab yoo xam ne dañ koy jàppale Touba ci kanam ci journée eh, de l'arbre bi nga xam ñu ngi ñu ngi koy waajal. Euh, camion bi nii euh, li ci nekk cinq cent xëy ñu ngi ci mille garabu mango ñu ngi ci euh, cinq cent citronnier mu ngi ci cinq cent garabu xëy ñu ngi ci démb bërki démb rek wàcc nañ fi garab yi nga xam ne mooy mentaliste yi mu toll ci mille et quelques yoo xam ne tamit ñoom ñoo ko jàppale Touba ca kanam ak ay matériels yu baree bari kon ñu xam ne liggéey bi tàmbali na képp koo xam ne garab ñor na la képp koo xam ne dëkk sëñ Touba bi jëm ca kanam ñor na la Touba ca kanam mu ngi la ci tàllal loxo euh, fleur yi nga xam ne gis nañ ko nii mu bari fi lool macha allah tey xeetu garab yoo xam ne garab yu cher la tey ku jënd association des jardiniers du Sénégal nekk euh, di Touba Dakar dëkk yu bari ñoom ñoo ko dajale mu toll ci ñaari camion yoo xam ne indi nañ ko def ko addiyee sëñ Touba ngir wàccaayu bis boobu noonu fi ñu toll nii war nañoo demaat foofu jëliwaat fa yeneen garab euh, suñu mbokk murid yi nga xam ne ñoo nekk Mboro ñi nekk Noto ñoom ñëpp dajale nañ ay garab mu toll ci ay mango ay citron yooyu yëpp ñoom it indi ko ci bis bi nga xam ne euh, Touba ci kanam mu ngi koy waajal muy spécial naatal Touba ñu ciy woo mboolem jullit di mbooleem taalibe yi ci képp ku am garab na ko indi ñu def ko ci dëkk Sëñ Touba bi ndax bëgg nañ fi fukki atkat kat nekk dëkk référence ci wàllu garab Touba naat ndax Touba kat ku fi ñëw da gis ne garab daf fee manqué lool moo tax gis ngeen tàngoor bi gis ngeen inondation yi te loolu lépp garab dafa bokk ci li nga xam ne mën na koo saafara kon nag ñu ngi tàllal loxo mboolem mbokki taalibe yi ku am garab indil ku am grillage bu mën a garab indil képp koo xam ne am nga loo xam ne mën naa tax ba lii ñu bëgg ci dëkk bi mu naat am nga jumtukaay gi ñu ngi lay tàllal loxo bu indi ko ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax rek képp koo xam ne dugal nga ci sa loxo rek yàlla na la Serigne Touba fay di beral spécial nag ak can waa eaux et forêt lañ lool ci liggéey bi waa direction cadre de vie macha allah ñu ngi ci terrain bi commencé di liggéey actuellement nii diggante garage Daaru Muxti ba hôpital Cheikhul Khadim daanaka tey ñu terminer reboisement ñu fay def mu toll ci mille quatre cent garab yoo xam ne ñu ngi ko fay def kon nag liggéey bi tàmbali na balaa la kat incha allah bépp axe boo xam ne waxoon na dañ ko reboiser bëgg nañ ko def ba bu président ñëwee sëriñ bi teew la la cay des du tuuti lay doon buñ ko te liggéey bi daal di mat kon ñoo ngi woo ñëpp ñoo ngi tàllal loxo ñëpp ñu ñëw ci liggéey bi ci liggéey sëñ Touba ñu naatal dëkk bi sell bi di Touba jërë ngeen jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci As-Samadiyya TV waaye ànd ak ñun ci Bichri TV Touba Monde bi TV ak euh, groupe communication Xassida online di ànd ak ñun en direct tamit ci fi nga xam ne moom mooy euh, lii di euh, Touba ca kanam TV ak seen rajo As-Samadiyya FM ak rajo Touba ca kanam international loolu mooy élément bi nga xam ne deuxième élément bi wane rek lan moo tax ñu tànn li nga xam ne moom mooy région Diourbel département bu Mbacké waaye itam lii di commune bu Touba ngir bañ a euh, guddal rek dañuy ñëw ci élément bi nga xam ne moom mooy premier élément ci tey dimanche le 4 août 2024 muy gataay bi ginnaaw boo xamee ne kilifa yi yegg si nañu nii la ñu ubbee jataay bi ci tàmbali liggéey bu nga xam ne mooy façon yéene dundal bis bi waajal ko ci lépp lu jëm ci wàllu liggéey bi nga xam ne war nañ ko liggéey ngir bañ a euh, guddal rek dañuy jël ngir bañ a guddal dañuy dañuy jëli benn élément bi nga xam ne moom moo nekk ci jitaay bi waaye ma del si rek bala may dem foofu ci ki nga xam ne mooy président commission environnement mamadu Falilou Ndiaye ñu ngi rendre hommage bu baax a baax Mamadou mustapha Amar moo njëkk a jiite li nga xam ne mooy commission bu environnement ci tubaa ca kanam àndoon ko ak Serigne Cheikh Kane def ci liggéey bu rëy bu am solo maa bi ñuy jëmbat li nga xam ne mooy mille cocotiers entre Mbacké ak Touba ci lii di kilifteefu Moustapha Amar la woon mu def ci liggéey boo am am solo ak yeneen liggéey yoo xam ne mucc na ayib ba ci 2023 bi kii di Moustapha Amar moom moo fi nekkoon ren di 2024 nag bi ñu yeesal après assemblée générale ci la ñu dénk liggéey boobu ma fale lu njaay mu jiite ko kon vraiment ñoo ngi jaajëfal équipe sortant bi fi nekkoon li nga xam ne moom mooy 2020 ba 2023 def fi ñetti at yoo xam ne résultat bi ñu am ni tey ba tax Touba ci kanam mën a def li mu def mi ngi woon ci taxawaayu. Moustapha Amar incha allah kon xam naa dañuy ñëw rek sunu euh, première élément ci yu tey bi nekkoon dimanche 4 août 2024 ñu ànd ak yéen ci seen émission Touba ca kanam tous les dimanches 20h à 21 lii la ñu indi woon tey ci gitaay bi ñu ne woon suba ñu ànd ak sëriñ Xaadim Fall ci régie bi. salaamaaleykum wa rahmatullah di njëkkee kàddu gi kàddu gi sant sant yàlla bu baax a baax moom mi nga xamante ne. moo ñu may ba ñu fekkee bés bi te tal ko ba di ci def activité boo xamante ne waajaloon nañ ko ci coobareem di no dooree di nuyu nuyu ñëpp ñi nga xamante ne euh, teew nañu ci bés bi te di jiital ci nuyu gi xalif général de murit sëñ Muntaxa Basiru Mbàkke di ko ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram di ko ñaanal bépp kilifa diine ci réew mi di ko ñaanal bépp kilifa aada ci réew mi di ko ñaanal waa réew mi yépp di sant bu baax le autorité yi nga xamante ne fekk naa leen fi mooy autorité administrative yi di maire di yeneen autorité yi nga xamante ne teew nañu ci bés bi di ndokkeel di jaajëfal bu baax ministère de l'environnement ak ñëpp ñi nga xamante ne agent ministère bi lañu di jaajëfal bu baax ñi nga xamante ne taxaw nañ am nañ taxawaay gu mucc ayib ci bés bi di beral loxo nag ñii di waa Touba ci kanam nga xam ne euh, bokk nañ ci li gën a tax journée bi ñu doore ko fii gannaaw cër gi nga xamante ne jox nañ leen ko ci seen taxawaay ci liy jëmal dëkk bi ci kanam waaye dañoo def jàlloore ci jëmbët garab bi ma doon waxtaan ak ministre bi lan moo tax ngeen tànn Touba pour ñu doore fa reboisement bi euh, dafa ma wax ne dañoo gis fan yi ci ndigalu xalif général des Mourides sëñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te wër waa Touba ci kanam dañoo def pépinière bu mag a mag a mag wax na ma ne sax pépinière bi egg ci ñaar fukki junni ak juróom ñetti junni ci garab muy vingt-huit mille garab yoo xamante ne mu ngi fii ci Touba ci pépinière te ñu war ko jëmbat ñu di leen ci jaajëfal bu baax di leen wax ne lépp loo xam ne gouvernement bi mën na leen ci gunge jaare ko ci ministère de l'environnement wala yeneen ministères yi taxawaay boobu dina mat sëkk parce que li ñuy ñaax ñi nga xamante ne ñoo nekk ci communes yi rawatina communes yi nga xamante ne dafay am mbooloo gu bare bare bare kuréel yi fa nekk lëkkaloog maire yi pour ñu taxawal ay pépinières yu mel ni pépinière Touba ci kanam muy pépinière boo xamante ne du dañ ko jëmale ci li saxal ay garab ci euh, dëkkuwaay yi sànq le porte-parole xalif bi ñu sëñ Bass Abdou Khadre ma koy jaajëfal bu baax ci teewaayam ak ci kàddu rafet yu mu yëkkati mu ngi wax ne ci ndigal yi sëñ Touba joxe woon ci jëmbat garab di ci ñaax taalibe yi def ko lal ci garab bu amul dund ju mën a am ci kaw suuf mu méngoog slogan bi nga xamante ne maanaam bakk bi nga xamante ne moom la ministère de l'environnement jël at gi muy garab moo tax ñun suñu teewaay gi ci àdduna mën di wéy mooy larbe notre assurance vie kon fépp fi nga xamante ne ci Sénégal woo nañu ñëpp pour ñëw ci bés bi taxawoo ko nu mu waree pour jëmbat ci nu mu gën a baree ay garab ci gox-goxaan yi ci dëkkuwaay yi dañ koy def ci logique co-construction bu ñu nekk ak Sénégalais yi bi ñu toogee ba tey maanaam liy defar Sénégal na Sénégalais bu ne jàpp ne mu ngi ci loxoom. ni mu nekkee ci loxo président de la république nu mu nekkee ci loxo ministère de l' environnement nu mu nekkee ci loxo bépp agent euh, ministère de l' environnement kon ci misaal ni taxaw ni saxal ay garab ak toppatoo leen ba ñu màgg nu mu nekkee wareef ci agent eaux et noonu la nekkee wareef ci bépp citoyen Sénégal bi nga xamante ne bëgg nga di dox di gis ay garab bëgg nga booy dox ba ba sonn nga am foo feexloo ci ronu garab bul xaar ne garab boobu keneen moo ko war a jëmbat ba mu sotti nga ñëw toog ci suuf si waaye yow tamit danga am cëru ak devoiru saxal ay garab di leen toppatoo. vingt-huit mille arbres maanaam ñaar fukki junni ak juróom-ñett ci garab yoo xamante ne ci ren gi kese waa Touba ci kanam saxal nañu ko balaa muy am sens ñépp ñi nga xamante ne ñoo dëkk Touba taxawoo ci li koy. lii ah lii tax ñu arrosé ko ba nawet bi génnee ba garab yi mën a dund waaye ministère de l' environnement boo xoolee ci lu mu recense yëpp ci ay garab ren gi ëpp na 5 millions juróomi million ci ay garab yoo xamante ne ci journée gi ren gii nii rek war nañ ko jëmbat ci gox goxaan yi Sénégal yëpp ngalawaay na ñu fexe ba ci 5 millions yooyu li ci gën a bare mën a dund ba taxaw ndax bu ko defee at bu ne bu yàggee Sénégal naataange dina fi dina fi dellu ci waat jaare la ko ci garab foo tourné gis ay garab te mu doon loo xamante ne day gën a ñongal dund gi ci biir Sénégal kon sant nañ ñëpp ñi nga xamante ne ñu gis leen ñu bañ leen gis ñu dégg leen ñu bañ leen dégg wala ñoom ñu gis ñu wala ñu bañ ñoo gis ci journée bi ci suñu taxawaay ñu ngi dem di jëmbat ay garab ci moment bii ñu toll nii di ko defee Touba ñu xam ne nii rek symbolique la ci dayob dëkk bi waaye symbolique la tamit ci taxawaayu waa dëkk bi ci yàgg saxal ay garab te gën cee taxaw ñu gën di leen ñaax di leen ndokkeel di leen jaajëfal di leen jox tamit mu doon royuwaay ci ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi ciy góorgóorlu ak ñeneen ñoo xamante ne war nañ cee gën a góorlu ndax bu ko defee ñun ñëpp buñ ko bokkee ci Sénégal am taxawaay boobu bu yàggee lépp luy avancé désert ak désertification ak ci fépp fu mu mën di nekk ci senegal dinañ ci ànd saafara ci nu mu gën a gaawee lii moo nekkoon luñ koy doore di doore di mujjee ci gën a ñaax ñi ci am taxawaay di leen gën a soññ waaye tamit di leen jaajëfal bu baax a baax a baax muy ñëpp ñoo xam ne taxaw nañu ci jëmbatal ay garab tey waaye ñi nar a taxaw tamit pour gën a suuxat garab yooyu ci di leen arroser ci di leen toppatoo ci di leen ñàgg ak désertification ak ci fépp fu mu mën di nekk ci senegal dinañ ci ànd saafara ci nu mu gën a gaawee mu doon loo xamante ne day gën a ñongal dund gi ci biir Sénégal kon sant nañ ñëpp ñi nga xamante ne ñu gis leen ñu bañ leen gis ñu dégg leen ñu bañ leen dégg wala ñoom ñu gis ñu wala ñu bañ ñoo gis ci journée bi ci suñu taxawaay ñu ngi dem di jëmbat ay garab ci moment bii ñu toll nii di ko defee Touba ñu xam ne lii rek symbolique la ci dayob dëkk bi waaye symbolique la tamit ci taxawaay waa dëkk bi ci yàgg saxal ay garab te gën cee taxaw ñu gën di leen ñaax di leen ndokkeel di leen jaajëfal di leen jox tamit mu doon royuwaay ci ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi ciy góorgóorlu ak ñeneen ñoo xamante ne war nañ cee gën a góorgóorlu ndax bu ko defee ñun ñëpp buñ ko bokkee ci Sénégal am taxawaay boobu bu yàggee lépp luy avancer désert ak désertification ak ci fépp fu mu mën di nekk ci senegal dinañ ci ànd saafara ci nu mu gën a gaawee lii moo nekkoon luñ koy doore di dooree di mujjee ci gën a ñaax ñi ci am taxawaay di leen gën a eh, soññ waaye tamit di leen jaajëfal bu baax a baax a baax muy ñëpp ñoo xam ne taxaw nañu ci jëmbatal ay garab tey waaye ñi nar taxaw tamit pour gën suuxat garab yooyu ci di leen arrosé ci di leen toppatoo ci di leen ñàgg pour dal gën bañ leen yàq lii moo nekkoon kàdd yoo xamante ne bëggoon naa ko sotti ci bés bi di leen sant bu baax a baax salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf wajalilaayi maskanitu baabaat misras Diomaye Diakhar fay ci kàddu yu am solo yi mu yëkkati bi njëkk moom mooy euh, lu am solo li mu def ndax ku ne xam na ne dégg nga li ñu wax ne moom lañ bëgg a def mu posé question wu lan moo tax choix wu Touba ministre bi nga xam ne mooy ministre de l'environnement mu joxe raison mooy war na ne lii di Touba ca kanam def na pépinière boo xam ne dem na ci vingt mille vingt huit mille plantes deuxièmement mooy euh, service bi yore wàllu eaux et forêt ci région de Diourbel ñu ngi ziar bu baax a baax. Euh, lieutenant colonel euh, Ismaïla euh, ñaam yi nga xam ne moom moo fi nekk ñu war leen ñu wax président ne ko gis nañu ne ci histoire u Sénégal résultat bi nga xam ne Touba Ca Kanam def na ko 80 pour cent garab yëpp yi dund mosul am ci histoire u Sénégal de troisièmement mooy troisième élément bi mooy région Diourbel amul géej quatrième élément bi mooy amul dex cinquième élément bi mooy ku ne gis nañ désert bi am ak lu jëm ci wàllu li nga xam ne mooy réchauffement climatique bi Touba dafa tàng donc mu nekk juróomi euh, élément yoo xam ne dina mën a confirmer dina mën a valider dina mën a wane ne soit bi soit bu logique la bu tekkee tege ci yoon la ak euh, bu am solo la fi mu ne nag ñu ngi am euh, suñu invité ci plateau bi mooy Serigne Cheikh Mbacké Cissé di technicien boo xam ne de plus haut niveau def liggéey yu am am solo ci wàllu garab dinañ ko dalal mu nuyoo ak mbokk yi moom mooy président sous commission bi nga xam ne mooy environnement Serigne Cheikh Mbacké ñu ngi lay dalal ci As-Samadiyya TV mais en même temps lii di Bichri TV mu ngi koy transmettre en direct Touba Kanam TV mi ngi koy transmettre en direct Touba Monde bi TV mi ngi koy transmettre en direct rajo Xassida online depuis Italie mi ngi koy transmettre en direct As-Samadiyya FM mi ngi koy transmettre en direct waaye tam rajo Touba Ca Kanam international ñu ngi lay déglu en direct Cheikh Mbacké Cissé bismillah euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh sëñ Mbaye Tène noo ngi lay bu baax di saare rajo bi di saare ñi fekk ñëpp di am mbégte ci invitation bi nga nu invité di wax loo loo xam ne mi ngi laal ci environnement ci nga xam ne mooy Touba ci kanam kon euh, loolu laay joxe nuyoo bi en attendant les questions. Cheikh Mbacké ginnaaw bu ñu la géré ndokkeel la tey bi su tey bi nekk la kat nga géré pépinière bi nga xam ne tey président répété ko maintes reprises mu 28 plante yooyu nan la Touba ci kanam bi def. installé li nga xam ne moom mooy créer li nga xam ne mooy pépinière ndax da ngeen di jënd garab yi indi ko teg ko wala yéen yéen a koy créer seen bopp loolu nan la demee pour ngeen réussir lu mel noonu Cheikh Mbacké voilà li nga euh, sëñ Mbaye Tène loolu yomb na euh, tontu mhm. euh, jënduñu ko ñaanuñu ko day Touba ci kanam dafa tàmbali di liggéey liggéey bu am solo ba nga xam ne xelam dem na ne désertification dafa am maanaam garab amatul ci réew mi rawatina fii ci Touba léegi nag mu xelam dem ci loolu mu samp fi benn pépinière bi mu sampee pépinière bi ne kon dañ fi produire ay garab ci ay façon yu bari euh, bu ko defee mu jublu ci reboisement maanaam jëmbataat garab ci euh, ci ci Touba. Mm-hmm. mais réew mépp nag la ko bëgg a jëmee. Mm-hmm. Euh, ñu ngi fi jëkk a jëmbat ñaar fukki junni garab ak ñaari junni bi ñu bi ñu sosee pépinière bi. tey defe naa defe naa tey. def nañu vingt huit mille garab. Mhm. ëpp na ko sax mais ci waxin wi vingt huit mille la ñu mën a wax. Mhm. ndax euh, bi ñu tàmbalee ba nga xam ñu ngi joxe garab yi. Touba Njaareeb reboisé nañ ko euh, ak beneen hôpital bu fi ne reboisé nañ ko te boolewuñ ko ci euh, li nga xam moom la ñu am. Mhm. muy vingt huit garab yooyu vingt huit mille garab yooyu nga xam ni actuellement mi ngi ci pépinière bi mais niñ ko doxalee ren mooy bu njëkk dañ daan jox di maye ak yooyu. mais léegi dañoo xool ne loo loo yàgg danga nga ci am expérience. Mm-hmm. ñu daal di ne kon léegi li ñuy def mooy def déclaration ku bëgg garab muy koñ yi dañuy ñëw dikk ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñoo soxla garab yi ñu former leen ci benn bis wala ñaari bis jox leen seen gëdd ñooñu la ñu jox garab yi. Mm-hmm. Euh, ñoo former leen ñooñu la jox garab yi kon loolu mooy waral ne euh, yëf yi mu ngi tegu ci yoon ku bëgg da ngay daal di ñëwal sa bopp mm-hmm. ànd ak ñi nga àndal. dikk ca pépinière ba ñu former la bu ko defee bu ko defee buñ la former daal di mën a jël sa euh, staff bi jox la bis nga ñëw jël garab yi jëmbat ko sa koñ buñ ko jëmbat da ànd ak pépinière si ñu ngi yor ndax no yor reboisement ak pépinière bu ko defee ñu ànd jëmbat ñun ñëpp ñu ànd jëmbat kon noonu lañ ko doxalee pour le moment. jërëjëf sëñ Cheikh Mbacke Cissé ginnaaw loolu jàllee léegi def ngeen liggéey yu am solo yooyu. Mhm. yàlla dogal ni ñu ko waxee sànq président de la république wax na ko. tey yow en tant que pépiniériste en tant que spécialiste en tant que koo xam ne dangay dund ak garab bëggoon nañu xam euh, lenn ci njariñu garab lenn ci njariñu garab tànn nañ mango danañ ci ñëw belta forom mi fi mhm. mais bëggoon nañu xam tey garab ci wàllu euh, réchauffement climatique mhm. euh, lan lan lan lay liggéey par rapport ak nit ki war a dund ci suufam mhm. tàngaay bi nan nan lay def ak moom waaw xam nga loolu bari na trop njariñ ndax li ci njëkk mooy émission d'oxygène et de vapour d'eau day joxe oxygène maanaam euh, euh, ngelaw li ñuy noyyi ngelaw li bu njëkk bi nga xamee ni ñëw na dafa ànd ak tooke la ñuy wax CO2 gaz carbonique léegi garab yooyu ñoo koy jël segg ko euh, jël carbone bi joxe ko oxygène bi ñu jox na ko dañ koy segg bu ñu ko seggee jox nu oxygène bi nu noyyi ko lépp luy noyyi nag mën nga noyyi ci oxygène boobu kon émission d'oxygène boo loolu lay firi ci gàttal mais vapeur d'eau xam nga fu bari fu bari garab taw bi dafay daal di am boo xoolee léegi ma jox la exemple Casamance xool ba mu dalee taw ak léegi hmm. ndax garab yu bari ya fépp fu bari garab rek taw ba day tàkkarnaas hmm. mais fi amul garab gis nga ko moo gën a néew taw kon loo tax ñu ne émission d'oxygène day joxe ay euh, ngelaw lu baax looy noy mais et de vapeur d'eau mais day joxe li nga xam ne mooy wàllu taw. Mm. da koy joxe da koy mooy mooy les euh, les pluies locales. Mm. da koy joxe moom garab yi. Mm-hmm. kon loolu am solo la moo moom laa gën a jàpp ci garab gi ci pour le moment li nga xam ne war naa ko wax. Mm-hmm. buñ waaw allez-y. Euh, euh, jërëjëf sëñ Cheikh Mbacké Cissé foofu am na solo léegi nu ñu def mooy dañuy jëli suñu beneen élément mm-hmm. tey ci bëccëg bi ñu bokk dund loolu après bu ñu ñëwee nga commental ñu liggéey bi ak ni am solo kon dañuy dem régie Euh, jël suñu beneen élément mooy ginnaaw boo xamee ne. Mhm. Euh, lii di tey di 4 août. Mhm. daje woon nañu ngir bisu garab. Mhm. ci dëkk bii di Séné réew mi Sénégal. ñu décrété ko 1983. ñu ànd ak waaris yi xool élément bi lan moo xewoon tey fi nga xam ne moom mooy héliport ci suba. dëkk bu sell bi di Touba doon dalal lancement journée de l'arbre di bis bi nga xam ne moom la ñu jagleel. garab ci biir Sénégal président Bassirou Diomaye Faye ànd ak Serigne Bassirou Mbacké Abdoul doon amal bu jotaay ay kilifa yu takkoo takkoo yëkkati seen kàddu delloo njukkal Touba ca kanam bi nga xam ne fees na ci lool gannaaw ba nga xamee ni kon indi nañu pépinière bu toll ci ñaar fukki junni ak juróom-ñett ci ay plan alors Touba ci kanam moom euh, dañoo nekk ay jàmbaar pour plusieurs raisons d'abord dañoo jël en charge développement Touba dañoo def une action la fois citoyenne boo xam ne au lieu ñu toog xaar état bi def lépp dañoo ñëw taxaw taxaw seen taxawaay ba muy taxaw bu rafet nekk taxawaay boo xam ne Sénégal yëpp dañ ci dañ leen waroon euh, euh, toppandoo ndax citoyen suñu organiser woo jàpp Euh, ci euh, vraiment activité dëkk bi sur le plan économique sur le plan social sur le plan euh, politique lépp loo xam ne xalif bëgg na ko ñu taxaw ci je crois que c'est un exemple rencontre woon naa leen il y a quelques mois waxoon naa aussi bëgg naa leen recevoir pour seet naka la le ministère du commerce et de l'industrie mën na jàppale jàppale jàpp jàppale leen ànd ak ñoom liggéey pour que Touba gën a mën a jëm kanam ñu gis nag ay taxawaay yu am solo ci Touba ci kanam naam sax dugulet ndax lu ñu def la loolu tamit am nañ ci mbégte mu rëy rëy ndax dafa mel ne kon ñoom ñi ngi ci ndigal li ndax lépp ci ndigalalu Cheikh Mountakha Bachir la la Touba ci kanam doxee kon nag taxawaay boobu taxawaay murid yëpp lañ ko defal euh, ñu ngi leen ci sant bu baax di leen ci gërëm di di soññ suñu bopp di soññ mboolem ko bëgg lu baax ci gën a jàpp jàppale Touba ci kanam ci liggéey bi nga xam ne mooy liggéey Serigne tubaa mooy liggéey Sénégal la liggéey développement la liggéey dimbali dimbali maanaam askan bi la kon Touba ci Kanam ngàcca ngalama ci taxawaay yi nga xam ne am nañ ko tey jii ak yi weesu te am nañ yaakaar ne tamit incha allah yéen ñëw tamit taxawaay yen la nekk kon ñu ngi leen encouragé di leen félicité di leen ñaanal yàlla. tubaak ci Kanam dafa bokk ci li nga xam ne moo nekk ci loi bi loi économie sociale solidaire bi nga xam ne tëgg nañ ko dafay jël en li ñuy wax volontariat boo demee ci euh, ci biir loi bi di nga gis ne bokk na ci conditions yi tax ñu wax économie sociale mu am volontariat. beneen bi mooy am euh, njëriñ pour communauté bi donc boo jëlee ñaari point yooyu ci biir loi bi Touba ci kanam da cee nekk. moo tax sama collègue ministre de l' industrie wax na ko sàng euh, nga xam ne tey balaa ñu am économie dëgg-dëgg bi ñu soxla bay dëppoo ak développement à la base dañuy am koom gu sës maanaam koom gu jege. koom gu sës nag yaa ngi koy amee surtout ci mbooloo day joxe doole su ko defee développement communautaire bi Touba ci kanam di def nga xam am na ci biir part financement xeet yooyu day tax réew mi mën a jëm ci kanam euh, bu ñu jëlee li nga xam ne nag mooy garab garab ci boppam day yombal lu bëri wax nañ ko climat bi da koy gën a baaxal day yokk wér-gu-yaram euh, day tax meññeef ñu mën ko am loolu yi dugg ci souveraineté alimentaire muy thème bi nga xam ne moom lañu def tey. rafetlu bu baax nag taxaw taxawaay Touba ca kanam ci liggéey bu rey bi nga xam ne ñu ngi koy def ci dëkk bi Serigne Touba bi di ñu ko defal ñun murid yëpp di ko def ci dëkk bi. muy liggéey bu am solo lii nag rawate ci muy li nga xam ne tey def nañ ko muy lancement journée nationale de reboisement muy wàllu jëmbati garab te ku ne xam na ne jëmbat garab dafa am solo lool ndax fii jamono toll ak changement climatique bi ñëpp xam nañ ne suñu environnement bi dafa yàqu te leen rek bokk nañu li ko mën a defaraat mooy ñu fexe ba jëmbataati garab mu mel ne Touba ca kanam ñu ngi ci at yi yëpp ñu ngi ci xëy na dañ leen cee fekk si rek mu nekk jekk seen loxo mosuñu koo jële jële ci dëkk bi lépp loo xam ne lu jëm dëkk bi kanam dañuy ñaan rek suñu borom gën a yàggal seen taxawaay gën leen a dëgëral te sàmm leen te Sëriñ Tuubaa nangu seenub liggéey. garab moom kenn amut fayam ndax émission d'oxygène et de vapeur d'eau la ñu wax kon ngelaw li moo na koy jox moo ne jox ngelaw li moo ne jox lépp loo xam ne soxla nañ ko ci kaw suuf si te mooy tax li ñuy bay mën a aaru ndax mooy protéger environnement bi. kon garab kenn amul payam. rafetlu nañ ko nag li ñuy gën a kii rek mooy li ma wax léegi rek. nañ xam ne garab yi bu ñu jëmbatuñ ko rek euh, bàyyi ko noonu dañu bëgg ñu toppatoo ko garab ak niteyam da nga koy toppatoo di suuxat di jox muy naan di jox muy muy lekk lekk gémmal mooy lan mooy neefare yeeg euh, tos bi nga ciy def loolu mooy ak lekkam. loolu nag bu ñu ko defee ci garab yi rek garab yi danañ mën a euh, taxaw te bu taxawee njariñul dëkk bi la njariñul ko commune bi la waaye njariñul waa dëkk bépp la. kon bu indiwaatee garab yu mel nii tegaat ko fi <clears throat> ñu euh, président de la république ñëw war koo jëmbat ñu war koo liggéey ci Touba li ci gën mooy ñu tàmm ko ba nga xam ni ne axe yi nga xam ne def nañ ko yëpp ñu fexe ba axe yëpp ñu sàmm ko ba bu nëgëni déwé ne ku ko gis xam ne Touba wii euh, ville bi ñu doon wax am na ko rafet na. kilifay Touba ca kanam bokk ci ñooñee Serigne Mamor Mbacke mi nga xam ni mooy président bi ak Serigne Abdou Fatah Gueye fësal mbébatu Touba ca kanam ci wéyal liggéey bu nu mel jébbal ko Serigne Touba. ci bis boo xam ne euh, sentiment de fierté la ñuy am ci liggéeyal Serigne Touba rawatina liggéeyal ko ci garab mooy bis boo xam ne tamit bis bu. doomu aadama mën a profité la soññ ko waat rawatina ko bokk ci Touba ca kanam rawatina ko yaakaar sëriñ bi soññikuwaat ci jamono bu nekk gërëmal suñu borom ndax euh, euh, sëñ bay li ñuy wax ñi nga xam ne ñoo tolloo génération mooy ñu farlu ci jëf-jëf yu baax yoo xam ne day jariñ àdduna ak àllaaxira genn garab boo ko jëmbatee ci kaw suuf mu sax ba màgg ba am njariñ na euh, ki def loolu na ko wóor ne jariñ na juróom-ñetti milliards yi doomu aadama yi ci kaw suuf yëpp jariñ na mbindeef yi nga xam ne mëneesu leen a lim ci xeeti ndundat yi nga xam ne ñooy jariñoo garab yëpp kon Euh, te yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxoon na ne ku jëmbat genn garab garab googee nit ku ca jariñu wala aw rab jariñu ca wala euh, lenn mbindeef jariñu ca rek ab sarax lay doon ñeel la kon mu nekk ab soññi bu rëy rëy boo xam ne am nañ ci mbégte li taxat tamit nag tey jii doonaat beneen journée de relance mooy boo nekkee ci mbir di ca yëngu di ca yëngu ba sëriñ bi jox la ndigal nga ànd cee gouvernement du Sénégal président de la république war fee ñëw tey war koo gën a jëmmal mu nekk loo xam ne au niveau national la waaye ñu di ko dara jaale Touba ngir taxawaayu Touba ca kanam ci garab loolu sentiment de fierté la mais ab soññee la kon ñu ngi sant bu baax di sant mboolem koo xam ne nag yaa ngi dugal saw ñaar téeméer fekk Serigne Abibou ci pas-pas bi mu woote woon dugal saw ñaar téeméer ci Touba ca kanam ba lii mën a taxaw tey di ci beral cant tamit mooy soxna yi ndax it euh, euh, soxna yi fu Touba ca kanam àgg ñooma bi ci toppaat tamit dama koy jeexale sëñ bay mooy jëmbat garab yomb na waaye taxawu ko ba màgg moo jafe taxawu ko ba màgg jooju nag moom la ñëpp war a def yitte ndax bu ñu nee dañ fee war a indi limub garab yi ñu fi war a indi war a taxaw ba jëmbat ko na ñëpp def yitte te ñu demee ñaari at ñetti at ku fi jaar xam ne journée bii ñu defoon kat lii mooy résultat yi ñuy wax ne daal lépp loo xam ne mooy matuwaay yi jël nañ ko ba mu mat sëkk te jot lu toll ci lu mu gàtt gàtt 27 kilomètres yoo xam ne jëmbat nañ ko fas yéen tamit jëmbat 28 quartier bu def junniy garab mu nekk ci 28 garab te incha allah tàmbul nañu liggéey bi depuis gaaw bi passé di ci nekk ba nëgë ni président bu demee ji la ñuy continuer incha allah ba octobre ñu fas yéene daal jëmbat Touba yëpp di woo nag taalibe yi di woo jullit yëpp ak Sénégal yëpp ñu gën a farlu ci jëmbat garab xam ne ci digal sëriñ bi képp koo xam ne yaa ngi ko yaa ngi dégg sunu kàddu ñoo ngi lay euh, sensibilisé di la ñaax ci jëmbat garab ndax garab lu am njëriñ la ci doomu aadama rawatina gi ñu tànn ren muy garabu mango am na meññat mu neex am na njëriñ ci wàllu wér gu am na njëriñ ci wàllu jërëjëf euh, jërëjëf waa régie euh, am na solo loolu mooy yi nga xam ne doon nañ ko jukki rek pour mën a ko sëñ Cheikh Mbacke Cissé tey ngeen liggéey liggéey bu toll nii Sénégal gépp doon xool tey lan mooy xew Touba. lan mooy xew ci tubaa ca kanam ngay président sous commission bi yore wàllu reboisement lii tey ban jàngat nga ci am. jàngat bi ma ci am mooy mbégte rek dëgg barke sëñ Touba mbégte rek laa ci am ndax li tax mbégte mi mën si na ko firi. premièrement mooy euh, pépinière bi nga xam ne Touba ci kanam installé na ko. Euh, muy jur ay garab yu bari yàlla defal nañ ci tawféex mais garab yooyu bu njëkk dañ doon def garab yu ndaw léegi dañ koy dañ ko defee naa cinq mille garab la ñu prévoir oon mais par contre bi ñu demee bi nga xam ne ay dem nañ ci genn wàll gi dañoo arrêté production bi continuer di arroser di entretenir garab yi ba mu toll noonu tey léegi garab gu boo fi demee tey ci pépinière ba garab gu ne ëpp sut na ma man te mét un mètre soixante quinze la mais na ma donc loolu dafa am solo d'abord ci Touba ci kanam ci révolution boobu mu def ci wàllu jëmbat garab daaw jëmbat nañu ay kilomètres yu dul jeex ci ay garab boo xam ne booba participation bi nga xam ne am na amut woon léegi nag moo attiré doomu aadama yëpp xam ne lépp loo bëgg da nga ciy da ciy dugg ak Pastef ak pas-pas bañ cee xool dara lu may yàlla mi nga xam ne loo def moo koy jubal. ci damay dikk ci tey président bii nga xam ne moo folo mooy Diomaye. bi mu ñëwee <clears throat> garab yi la wax. Touba ca kanam la lim li nga xam ne liggéey na ko ci wàllu garab. dégg nga te di début la rek ndax deuxième campagne bi bu ñu ko defee bëgg na nu chaque année cent mille plan la ñuy def. chaque bu soobee yàlla bu soobee yàlla. cent mille plans téeméeri junni garab. la ñuy prévoir chaque année c'est-à-dire bu ñu defee garab yi bu ñu tàmbalee jëmbat nga xam jëmbat mi jëmbat nag dama la wax ni sëriñ bi sëriñ bay chaque jour que jafe mën nga ñoo jëmbat jëmbat amul waxtu seulement nag taw bi da ciy gën a baax mais taw bi un mois lay duré kii mais amul waxtu loo tax ñun jëmbat bi lu jeex rek dañuy indi leneen du am rupture kon loolu la ñu doon jo wax ci wàllu jëmbët garab yi li ci des li may jàngat ci wax ci wax ji mooy la vérité à part des faits dëgg mooy li nga xam ne teg nga ci sa bët ndax président bi ñëw foofu ma yebal na na fa premier ministre xam benn ministre ñëw na fa fala ma fekk xool nañu lépp euh, ki nga xam moo jiite eaux et forêts bu Diourbel ñëw na fa xool ba matale ba mu yoroon lépp Touba ca kanam man maa ko jëli jox na ko kon léegi liggéey boobu dafa am solo te xam nga gars yi bi ñuy bi ñuy bi ñuy ca kanam bi ñuy liggéey demuñ ci gouvernement woowuñu kenn dañoo takk seen digg xam ne Serigne Touba la ñuy liggéeyal. waaw bi ñu takkee seen digg boolewuñ ci kenn lu mooy képp ku bëgg liggéeyal Serigne Touba na nga ñëw. looloo ko ko def sëñ sab liggéey dana dox ndax sëñ Touba du nax kenn te kenn mun koo nax. Mm-hmm. lo ñoom it naxuñu kenn mooy Touba ci kanam. Mm-hmm. kon Touba ci kanam indi na benn révolution ci wàllu garab. ci wàllu jëmbat ndax njëmbat dafa am solo. Mm-hmm. ndax xoolal bu ñu bayee ren. daanaka rendement bi du du am. ngelaw li fàkk na suuf si. dégg nga euh, engrais euh, engrais boo ko ci defee du dox. ndax amut garab goo xam ne dana téye ngelaw li. donc loolu lépp mu xool ko ne garab moo indi euh, ñàkk garab gi moo indi lii. mu xool ko daal di créer benn pépinière boo xam ne. chaque année cent mille garab danañ ko produire te d'une manière boo xam ne successive lay doon. Mm-hmm. bu ñu joxee garab yi bala ñoo kii ñu defaat yeneen garab di nga xam ne. amul amul arrêt. tey nit ñi dañoo dañoo manko comme daaw bi ñu defee mm, garab yi di ko joxe euh, nit ñi yóbbu nañ ko di ko joxe fële ci euh, fële ci kër sëñ Touba gi. mais ren loo gis na ngay am expérience. dañu xam ne joxe boobu am na lu ko gën. mooy nit ñi dañ leen di euh, tànn. ne ku bëgg garab da ngay def sa. sa sa groupement nga ñëw ci pépinière ba. foofu sax bëgg naa fay ñëw foofu sax bëgg naa fay ñëw. voilà kon ma xam naa xam vingt huit. mille vingt huit yi nga xam ne. am ngeen ko war ko joxe nan ngeen koy séddale loolu bëggoon naa ko xam. voilà mhm. ni ñu ko séddalee. vingt huit mille plantes la ñu la ñu créé léegi ñaar fukki junniy garab ak juróom-ñett. Mhm. léegi presque ñetti guddi junniy garab. Mhm. te ëpp na ko ndax Touba Njaareem joxe nañ fa ay garab noonu noo ko aménagé. Euh, ak ak euh, beneen beneen beneen beneen kuréel gi nga xam beneen beneen hôpital joxe nañ fa ay garab. Mhm. te boolewuñ ko ci lim bi. Mhm. ak yi nga xam ne dañ ko doon maye. ñu koy joxe kenn boolewu ko ci. Mhm. mais la fa ne la ñu kii muy vingt huit mille garab. vingt huit mille garab yoon ni système bi ñu joxe de distribution bi ñu joxe leen bokkul ak daw dañu ne groupement bu bëgg koñ bu bëgg. Euh, da gox bu bëgg da ngay dajal la sëw nit ni dama bëgg ñëw wane ne ñii nga àndal ñu formé la. dañoo tàmbale formation bi. buñ la formé nga xam ne ñii kat ki nga xam ne jóge na. këram dugg ci oto luye oto ñu former ko ñu luye oto ñu jox ko ay garab kookee dana téye garab ya loolu la ñu def ren képp koo xam ne ñëw nga ci formation bi ñu former la bu garab yi jotee dañ la ko jox ba garab yi ba garab yi jeex mais bu garab jeexee yeen garab nga fa tàmbaliwaat nañu kon noonu la ñu doxalee yëf yi li ma xool ci président hmm, Diomaye euh, daa wax dëgg ndax la vérité à part des faits mhm. dëgg bu jubee c'est parce que lañu ñu la ñu la ñu teg la ñu dox lépp day dëgg mhm. yeble na fa ab ministre ca ca ca pépinière ba mhm. ba mu ñëw xool pépinière bi def ay ay ay ay ay waxam xam ne pépinière bi dëgg moo ko lal te dëgg ay nit ñoo ko liggéey mhm. ñetti nit ñoo fa ne ñooy mooy ñetti nit ak man ñooy pépiniériste yi war a war a war a war a produire lu mat ci cinq mille garab kon ñooñu xam nga ne jàmbaar lañu léegi nag ba mu ñëwee xool la moom tax wax ko président président wax ko te ko dem tey wàññi ko ëpp na vingt huit mille garab nun noo ko foofu rek ak yi ñu joxe kon loolu dafa am solo Diomaye nag wax na wax wax na lépp nee na vingt huit mille garab yi dañ ko war a jëmbat fépp foo xam ne war nañ faa def reboisement nañu nañu jël jëlaat suñu pexe euh, maanaam pépinière boobu mën na nekk pépinière centrale mais ñu décentraliser ko au niveau de Touba Euh, maa ngi gërëm Fallou Ndiaye. balaa ngay ñëw ci Fallou sax. bëggoon naa dégg nañ fi ñaari ministre ministère de commerce ak bu agriculture kii wax ci autosuffisance ngi kii wax ci wàllu commerce taxawaay bi nga xam ne Touba Caméra mi ngi koy def ak euh, impact bi ñu ci war a def waaw. <clears throat> autosuffisance alimentaire mooy lépp loo xam ne jëm ci wàllu dund. mais dund du lu ñuy lekk rek. du ceeb bi rek. Mm-hmm. du cere ji. Mm-hmm. mais lu war boo lekkee ba pare war nga fiixlu war nga noy gar euh, euh, ngelaw lu baax te loola garab moo koy def boo xoolee ci garab mooy def loolu donc émission d'oxygène et de vapeur d'eau ci ma doon li ma doon wax ci garab ñëwati na mu wax ca lu rafet kon garab mooy base bi désertification bi am ak loolu yëpp manque garab moo ko moo ko moo ko ak même taw bi wàññeeku amatut manque garab moo ko moo moo moo ko waral kon garab yi bu ñu ko delloo fu mu war a delloo ñëpp fonk ko ba ba garab yi taxawaat dund gu dund gu jëkk ga nga xam ni sunu maam yi moom lañ doon dund moom la ñuy dundaat mais garab bu fekkee ne manqué na ci dëkk lépp manqué na parce que chaîne de la maanaam ni ni garab di doxee wa ci suuf si da ciy wax ci nga ci ngay produire loo lekk ngelaw li ngay noyyi dégg nga kere gi ngay toog ak euh, tos bi muy jox suuf si ba nga xam boo ci bayee mën ci am dara mën a dund kon garab mooy lépp sëñ sëñ kii jërëjëf Serigne Cheikh Mbacké Cissé jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci As-Samadiyya TV waaye ànd ak ñun ci Bichri TV Touba Monde bi ak groupe communication Xassida online mel na ni ñetti minute moom moo des ci li nga xam ne moom moo ñu cëral ci waxtu euh, yan kaddu ngay mujjee ginnaaw boo sante sëñ Fallou jaay ak waa Touba ci kanam looy dénk mbokk taalibe waaw li may mujj mooy sant d'abord Touba ci kanam mi nga xam ne moo sos yëf yi te yàlla rek ak yonent bi ak sëñ Touba tax mu sos ko mais dénk yëf yi Moustapha Amar mu doxal ci lu rafet mais mu mu dénkaat ko Fallou Ndiaye Fallou njaay nag il est ndax tey li fi daje ciw nit ak li ñu am ci garab ak li ñu am ci pépinière mësuñu ko am te sëñ Touba amul tànk gannaaw léegi nag kooku dañ ko sant muy Fallou njaay ak équipe bi mu àndal mooy nun nun rek la àndal mm-hmm. waaw ba pare euh, di euh, euh, séddale lépp nag yorul lépp dafa yor lépp ba pare séddalee ko kenn ku ne di wax di ci di ci def di ci jëf di ci wax mm-hmm. kon noo koy sant di sant Touba ca kanam mm-hmm. di sant ñëpp Euh, te di yokk ne nanu gën a yo góorgóorlu mm-hmm. nan yokk jéego yi mm-hmm. ndax liggéey sëñ Tuubaa amul taxaw mais amul tànk gannaaw ku liggéey sañ Tuubaa sëñ Tuubaa fay la kon noo lay sant di la gërëm di sant ñi fi toog ñëpp mm-hmm. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala waaleykum salaam wa rahmatullah mbokk yi mu nekkoon seen émission euh, Touba ca kanam di am tous les dimanches vingt ba vingt une ñu tàmbale woon ko tey nag mu nekkoon bis bu am solo mooy le 4 août 2024 mu nekkoon journée national de l'arbre fii ci Sénégal ñu jareen ko région Diourbel département Mbacké commune bu Touba ci taxawaay ak yitte ak pëseefu waa Touba ci kanam sant nañu mbokk ñi yëpp gërëm leen di ñaanal ñëpp jàmm di leen jox dig day beneen dimanche incha allah wasalaamaaleykum wa asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki Touba ca kanam Nourou Darayni ñoo ngi leen nuyu baax di leen ziar eh, ñoo ngi fii ci toolu Touba kanam bi nekk fii ci Darou Rahman ñu nekk ci wàccaayu eh, journée de reboisement 4 eh, août incha allah ñu di ko waajal fii ci dëkku sell bi di Touba te son excellence monsieur le président Bassirou Diomaye Diakhar fay décrété ne Touba la ñuy defee ren journée de l'arbre Touba kanam nag di ko waajal ànd ko ak ministère de l'environnement fii ñu nekk nii nag. Euh, camion bii nga xam ne ñu ngi wàcce garab yi mu ngi jógee eaux et nga xam ne ñoom dem ba tey camion yi ñu ngi ñëw di ay garab yoo xam ne dañ koy jàppale Touba ci kanam ci journée euh, de l'arbre bi nga xam ñu ngi koy ñu ngi koy waajal euh, camion bii nii li ci nekk cinq cent xëy ñu ngi ci mille garabu mango ñu ngi ci cinq cent citronnier mu ngi ci cinq cent garabu xay ñu ngi ci démb bërki démb rek wàcc nañ fi garab yi nga xam ne mooy mantalis yi mu toll ci mille et quelques yoo xam ne tamit ñoom ñoo ko jàppale Touba kanam ak ay matériels yu baree bari kon ñu xam ne liggéey bi tàmbali na euh, képp koo xam ne euh, garab ñor na la képp koo xam ne dëkk Sëriñ tubaa bi jëm ci kanam ñor na la Touba ci kanam moo ngi la ci tàllal loxo euh, fleur yi nga xam ne gis nañ ko nii mu bari fi lool allah tey xeet garab yoo xam ne garab yu cher la ku doon jënd association des jardiniers du Sénégal nekk ci Touba Dakar dëkk yu bari ñoom ñoo ko dajale mu toll ci ñaari camion yoo xam ne indi nañ ko def ko addiyee Sëñ tubaa ngir wàccaayu bis boobu noonu fi ñu toll nii war nañoo demaat foofu jëliwaat fa yeneen garab euh, suñu mbokk murid yi nga xam ne ñoo nekk Mboro ñi nekk Noto ñoom ñëpp dajale nañ ay garab mu toll ci ay mango ay citron yooyu yëpp ñoom indi ko ci bis bi nga xam ne euh, Touba Ca Kanam mu ngi koy waajal muy spécial naatal tubaa ñu ciy woo mboolem jullit yi mboolem taalibe yi ci képp ku am garab na ko indi ñu def ko ci dëkk Sëñ Tuubaa bi ndax bëgg nañ fii fukki at kat Touba nekk dëkk référence ci wàllu garab Touba naat ndax Touba kat ku fi ñëw da gis ne garab daf fee lool moo tax gis ngeen tàngoor wi gis ngeen inondation yi te loolu lépp garab dafa bokk ci li nga xam ne mën na koo saafara kon nag ñu ngi tàllal loxo mboolee mbokki taalibe yi ku am garab indil ko am grillage bu mën a protéger garab indil képp koo xam ne am nga loo xam ne mën naa tax ba lii ñu bëgg ci dëkk bi mu naat am nga jumtukaay gi ñu ngi lay tàllal loxo nga indi ko ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax rek képp koo xam ne dugal nga ci sa loxo rek yàlla na la Sëriñ Tuubaa waa eaux et forêt jàmbar lañ lool ci liggéey bi waa direction cadre de vie macha allah ñu ngi ci terrain bi commencé di liggéey actuellement ni diggante garage Daaru Muxti ba hôpital Cheikhul Khadim daanaka tey ñu terminé reboisement yi ñu fay def mu toll ci mille quatre cent garab yoo xam ne ñu ngi ko fay def kon nag liggéey bi tàmbali na balaa la kat incha allah bépp axe boo xam ne waxoon na dañ ko reboiser bëgg nañ ko def ba bu président ñëwee sëriñ bi teew lay la cay des du tuuti lay doon buñ ko jëmatee liggéey bi daal di safar safar safar salaatu fi kulli shahrin wa fi safar xamaani ala maahim ma alxabsa wa safar bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mboolem mbokki talibe yi seetaan seen télévision As-Samadiyya TV ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziyaara di leen yëgal ne sunu jataay yi tudde gi te di ko waajale 18 safar altani ji di ñëw incha allahu di ginnaaw suba ci 21 heures dinañ ci dalal daayira qurratul ayni bi taxaw jumaay Serigne Souhaïbou mbakke ci ndigalul Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké moom Serigne Souhaïbou